aleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 8 mai 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi sunu lamb nag tey fa la muy xëy dooreeti ko yëglikaay ba nag Modou Lo la nu xëy wan mu nga sol ay yéreem yoo xam ne daal yérey làmb piir la yor ay bagaasam maanaam ay xar xarfa xuufaam waaye kay wax du jànjekko la du jànjekko ma jiite amateur yi tey daal xëy na wax li nga xam ne ni moom la gis ci combat bi Modou Lo jël ñu ne ko duudu loo ci gis mu ne Modou day day risqué ndax lii mu def dey jàpp na ne day est-ce que bëggula enseigné ay defat tey lool itam boo sàggane mën na ko cee fekk moom du jaaj daal la gis dafa jàpp ne daal Modou combat bi mu accordé moom li tax mu accordé ko est-ce aspect financier maanaam daal mbirum koppar yu bëri loolu daal mooy gis-gisu kii nga xam ne ni mooy Doudou Diagne Diecko ci combat bi nga xam ne moom la Modou Lo jël waaye Eumeu seen nag la mu gis mooy Eumeu moom nee na combat bi moom boo bëggee dégg-dégg moo ci ëpp liberté nee na daal moom combat bi du ci am pression bu baree baree bëri waxi Doudou Diagne Diecko la tey ci yëglekaay bi nga xam ne ni moom moo di sunu lamb beneen boo combat boo xam ne tamit wax na ci mooy combat Lac de Guiers ak Boy Niang nee na Boy Niang day ci la jëm lu doya doya doy waar daal ci la jëm waaye nga xam ne nii moom la bëgg a ubbi ji te Lac de Guiers 2 yor ko ne na bu ko ubbee nag moom mooy bunt bi nga xam ne nii moo koy dugal ci biir néeg Balla Gaye numéro 2 maanaam daal su fekkente ne daan na loolu mooy waxi du jaan jeex ko tey ci sunu lamb leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da ko defab seetlu muy diggante Pikine ak Parcelles mu mel ni ren moom nar naa metti lool lool ndax nag axe bi dox ci diggante Parcelles ak écritage si nga bi ama seen jiite day jàppal nar naa metti ndax jongante ba dox seen ko ca Parcelles mook ngeer ca taay singa la góora a sot moom itam mu nga ca écrit bi nga xam ne moo di dóor dóoraat taay seen deux taay singa mu mel ni ki foofu moom jongante bu méttee métti moo fa nar am ci diggante parcelle ak pikin xamuñu nag mbir ma fan lay mujje bu nu ca yeggee yeneen ñoo xam ne moom ñu ngi wane seen bopp mooy waa yoof mu mel ni ki daal écrit yoof bi moom jàppal ah ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax caatu ngewel wane na boppam ñu ne déet ne waay gin bu yoof tamit wan boppam kere kii nga xam ne nii moom moo di tonnerre yëglekaay bi di sunu lamb moo xëy dina ko wax tonnerre numéro 2 daal keroog kii di gin bu yof wan na ko boppam leneen loo xam ne tamit mën nañ caa dem ci biir yëglekaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb kii di amaa Ndaw nekk ci lee tigres mu nga xëy nag di dëkk mbër ma muy dëkk nag mooy soq nee na ko daal li leer ba leer ñëwal ñu bëre maak yow tëj saison bi bu nu jullee korité ba pare moo gën ndax defoo fi lu ma deful amaa ndaw a xëy tey di wax loolu Paul Maurice numéro 2 moom bu garaaf mboola moom moom tamit mu ngay wax ay bëgg-bëggam daal wan boppam publiku làmb daal mooy li nga xam ne nii moom moo ko soxal leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ki nga xam ne nii nag moo di góor production góor production daal làmb ji mu tëggoon dimanche moom coow am na ca di làmbe mbappat ndax nag ci mbirum ticket daal entraînement dafa mel ni daal ak yokkute ca am loo xam ne daal boog neexul amateur yi ba tax na daal coow la mu nga mel ni tulleeg màlle ñu ngi ko koy jiiñ waaye moom it mu ngay seetal lii nga xam ne nii moom moo di boppam keneen koo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ cay continuer ca Leewtoo point net la ñu ko fekk muy kii nga xam ne nii moo di Cheikh Tidiane ñan Cheikh Tidiane Niang nag jàpp na ne moom daal fi mu nekk nii lu jëm ci wàllum lutte olympique maanaam bëre olympique bi daal arrêté la koy def ndax nag bëre la boo xam ne moom gisu ci boppam maanaam daal day bëre ji ba ñëw te bu ñëwee du ca gisub xaalis du ko ca dégg loolu mooy waxi Cheikh Tidiane Niang fa nga xam ne moo di Leewtoo point net leneen loo xam ne tamit dañuy dem ca sunu làmb fekk ko fa mooy alin Alioune Sall meeru Guédiawaye bu ñu tuddee làmbi booy Niang ak Lac de Guiers 2 Alioune Sall nag nee na woona 557 maires yi nekk ci réew mi daal ngir bés booba ñu teew ci arène nationale ba gunge ko dooleel ko waaye nag li ma ja li jara wax daal mooy lii nga xam ne ni Cheikh Tidiane da koo wax ci Leewtoo point net Cheikh Tidiane nee na day dootul def lutte olympique ba ndax amutub xaalis waaye kenn koo xam ne nii moom wane na boppam dem ci Leewtoo TV ci wàllum ndogu mooy tonnerre numéro 2 ba nekk ci écurie Ndakaaru tonnerre 2 daal dem waa Leewtoo TV ñoo ko seeti woon ndogu la riis na lool Talla Ndiaye rey na fa boppam waaye xam nga lu neexal ndogu la am Ecotara mi nga xam ne nag moo ñëw nag léegi jël ndogu la Babacar doon def Ecotara baax ci tabax bâtiment baax ci gasu forage baax ci tabax tali lépp loo xam ne sax branchement courant la Ecotara da caa baax man mi nga xam ne bëgg naa yóbbu sa tuddoo ci ak yaay waaye Ecotara dimbali leen ma ci lool ndax ma gasam sa tuddoo suñu waa dëkk di di roose di bay ndax nag taala ndox du doy de ku weddi laajal gaa yi ci koor gii ndax ndox baax na wala déet salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour ma si ànd ak sama mag sama xarit euh, chéri Teneng Babacar nuyu naa la ay sa waaw may naa la 10 000 ah si loolu chéri Teneng ma koy nuyu di ko ziar Teneng Eh, di ko ñaanal jàmm di ko ballu ak si koor gi di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di la nuyu sama rakk sama xarit Serigne Moussa Niang nuyu internet ñi ñuy suivre ñi ñuy suivre ci Leewtoo yëpp daal waaw waaw Babacar ñu dugg ci waxtaan bi ubbee ko ki nga xam ne ni mooy euh, Doudou Diagne di président des amateurs am waxtaan ak li nga xam ne ni mooy sunu lamb ñëw ci combat bi war a dox diggante Modou Lo ak euh, Balla Gaye foofu rogu parcelle bi dafa jël euh, li nga xam ne ni mooy risque bu rëy parce que boo xefee mu rek mu teglante ay défaite te loolu moom du lu gën ci carrière Modou Lo waaw loolu moom comme li ñuy wax rek Doudou Diagne Diécko président des amateurs ñu koy nuyu di ko jaar ci weeru koor gi di ci profité wàll di nuyu amateur yëpp di ko teg ci loxom mu nuyu ñëpp ah di leen balu ak ñoom tamit li mu wax nag euh, loolu nit ku nekk rek danga am droit joxe sa xalaat te yàgg na ci làmb xam na mbër yi bëri démb ba bàyyi bëri bëri nañ ci kanam ak mbëru tey kon yaakaar na buy wax ci làmb war nañ ko mën a bàyyi xel déglu ko risque bi nag man su may déggee bu fekkee am naa dégg-dégg kon ci li muy wax fi muy waxee mooy xëy na combat bi mu newoon muy diggante ak Balla Gaye ku ne xam enjeu ba na mu toll woon balaa combat bay jeex fekk moom si ñëwaat na pour war a bëri beneen komba xëy na foofu bu ñu fa demee mën nañ ne loolu est-ce que waroon na koo def mais itam moom mi ko def est-ce que li ko maanaam li mu def dalul xelam parce que mag mun na yaa xam li dal sa xel kon yaakaar naa moom bu jëlee combat boobu ak noonu mu ko jëlee xëy moo dal xelam mais kii analyser tamit wala muy seetlu am na droit xalaat ne moom est-ce que lii waroon naa am am na koo xam ne mën na analyser ne jaadu na am na koo xam ne mën na analyser ne jàpp ne loolu risque la te ne du jaañ euh, noonu lañ ko mën a gisee rek leneen ci des tamit àddina moom lépp rek mën naa ne ay risque la xëy na dafa ëppante niveau làmb moom boo xoolee risque ci la nekk chaque jour parce que li tax mooy bu fekkee da lekk avance war a ak nit ki kooku li muy bëgg mooy bëri ak yow daan la comme ni koy bëggee foofu defe naa bu ñuy wax risque lépp ay risque la daal mais waaw muy Modou muy Eumeu Sène sax ñoom ñaar ñëpp ku nekk ni nekk nii ci risque nga nekk parce que Modou daanu at ko Eumeu daanu arrangé wu ko ndax daa bëgg a fayu te dafa yor couronne roi des waaw. waaye du jañee mu ca Babacar dem na si combat bi war a dox tam diggante Lac de Guiers ak euh, Boy bu ñu xamal ni tam Boy Niang combat bu dangereux la jël te it combat bi la de mooy caabi bi war a ubbi euh, buntu néegu Balla Gaye wala buntu kër Balla Gaye kon combat bi am na enjeu si Boy Niang mais tamit danger la ci moom. waaw loolu moom am na danger bi moom am na parce que li tax muy danger si bu ñu jàngatee combat bi. dëkk gox boo xam ne da nga fa dugg daan fa mbër yu bari lu set lu toll ci sept personnes mu des fa ñoo xam ne mën nañ na tey ñooy mbër yëfa gën a mag muy Lac de Guiers 2 nga am ci kenn ki muy Lac de Guiers 2 ah loolu mënuñu ko bu bu fekkente ne combat danger moom moom la ñu mën a mooy li ñu mën a wax moo ci am parce que euh, réalité combat bi loolu la wane. beneen bi bu dee ko seexal la bi nga xam ne ci durant carrière am bañ ko gisee mu commencé bëri ba fi mu yegg si nii tey mosuñoo gis ci làmb mu ñëw ñu kat kii dafa manqué entraînement wala adversaire euh, maanaam daal corrigé na ko comme ni ko mën a waxee duma ko daan ko dem loolu gisaguñ ko ci moom yaa dégg benn defet la am contre Eumeu Sène waaw te mu demee léegi li des mooy euh, loolu su nag si biir combat bi ne kon danger mu ngi si biir ba pare itam Balla Gaye de boobu ngay wax bu fekkente ne la dëgg dama war a doon caabi ji ubbi pour Boy Niang mën a yegg sa Balla kon tamit ba continuer seen yoon loolu la gis moo lay wan ne kon combat danse dëggantaan la mais danse bi tamit dama leen koy séddale ñoom ñaar ñëpp parce que ku ci nekk ci ñoom ñaar combat bi jàppal ne bu dee ci sa côté danse la parce que ku ci ne am na lu tax combat bi nekk ci yow danse quoi waaw jógee ci fi nga xam ne Babacar mooy yoof ñu gis ni même bu fekkee mojja bareegul ténor yi tamit am seen combat ba léegi ñu koy xaar euh, ñuy xamal ni espoir yi ñoom ñi ngi bay seen waar ci écurie ba ki ci mel ni gin ki ci mel ni jaatu ngéwal gi ñoom ñi ngi jéem a euh, li nga xam ne mooy suqali écurie bi ko bu fekkee ni mag ñi nekkuñu fa waaw loolu la parce que écurie du du du nekkul ne ténor yi rek ñooy bëri espoir yi dañ ci bokk loolu tamit defe naa xel nangu na ko xam nga Malick ñaa gëj na bëree te mooy leaderu écurie ba euh, dumbul voyage dem na États-Unis mu ja am na combat mais bëreegul après Korité lay bëri xale yi bu fekkente ne ñoom ñu ngi ñëw di wane leer di leeral yoon bi def naa loolu day baax sécri bi muy gin bu yo gin moomu daan bëri ki démb ki nga xam ne nii moom moo di euh, tonnerre numéro 2 bu écrit ki nga xam ne nii moom moo di caatu ngéwél kera gis nga combat mu daan boo xoolee ren moom bii mooy deuxième sortem caatu ngéwél ndax premier sortem Ada Fass da koo daan mu ñëwaat daan loolu moo leen daal lamb moom ku ci nekk rek jëmat ci sa day que loolu mooy sport ah. mais encore une fois ñu ngi leen nga xam ne am nañ ko parce que bul fàtte tamit bébé Birahim buy keroog daan na booy ñàgg te moom tamit lépp ci ci yoof la ba tey waaw waaw. waaw Babacar ñu dem ci Ama Ndaw Ama Ndaw moom euh, bëgg combat fii fin de saison bi jël ay bëtam nag teg ko ci ki nga xam ne ni mooy soq te mu daan fii bu yàggul kii di naan di faal. waaw loolu de adversaire mbër bu ne sañ nga ko diw laa bëgg a bëreel parce que Ama Ndaw gëj nañ ko gis si làmb tamit yaakaar nañ ne euh, wala boog ci biñ koy gis muy bëre xam nañ ne que am na lu ne si moom si bëre te bu góorgóorlu war na mën am dara ko na droit defee parce que làmb noonu la danga da ngay wax ki nga bëgg a bëree wala ki te du nangu bëre ak yow waaw actuellement pour nga jox sox Ama yaakaar naa sox da koy bañi waaye nag am na droit dëkk ko loolu moom c'est très normal moo lay wan nekk daal làmba ngi noonu ñi war a bëre daal buñ leen seetsee promoteur ñëw jox leen lu tax ñu war a mën a bëri pour mën nañu sëgg bëri rek waaw bu leen arrangé waaw Babacar euh, ñu dem ci Cheikh Tidiane Niang mi nga xam ne nii da doon def euh, lutte olympique moom nag <laughs> jël na décision arrêté li nga xam ne nii mooy carrière boobu mu doon entamé ci lutte olympique bi parce que nee na amul xaalis da ciy bëree ba sonn mais gisu si boppam daal amul xaalis ay <laughs> satu daal mag buy naan ndox mu tàng moom suukar sa moo tax daal vraiment mais kenn du jël ndox mu tàng di ko naan noon sans suukar bu fekkente ne nag moom jàpp na ne lutte olympique boobu gisu ci boppam du ci am weccet te itam boo yëngu ci dara soxla nga di ci am looy gagné pour mën a yor sa bopp ah bu xëy ne da koy arrêté tamit yaakaar naa ne am na si droit mais dañuy ñu ñu ah, pour que am motivation di di ñu défendre parce que itam ku ni sa Tidiane Niang ak li muy défendre équipe nationale yaakaar nañ ne côté bu mu a défendre rek mooy lutte olympique ak lutte libre ak gréco ak sériao ak yëpp war nañ leen di jox loo xam ne daal dinañ ci mën di jàpp ba nga xam ne ni dina dinañ mën a am courage di sawar di dem ci yu mel noonu waaw waaw Babacar ñuy jeexal ak euh, li nga xam ne ni mooy ndogu bi ndogu bi amoon démb ak ki nga xam ne ni mooy tonnerre de Babacar mu nekkoon tam émission boo xam ne réalisé ngeen ko commencé ngeen ko war cee ànd ak yeneen mbër incha allah. waaw bu soobee suñu borom ñuy profité di ci di nuyu ñëpp ñi nga xam ne rek parce que émission ndogu li daaw laa ko doon def ca Lutte TV yàlla dogal ren ah ma ñëw Leewtoo heure bi di leen nuyu ñoom encore une fois di leen ñaanal jàmm di bi yoon nag ci Leewtoo am ñu ma doon tooñ sax naan ma damay dem ci kër mbëri di ndogu rek te duma leen yóbbu dara ren nag mu mel ni nag ànd naag koo xam ne mat na àndandoo mat naa mën naa gunge ku ñemewut ci yoon wala kuy dem te fi nga jëm lëndëm muy Ecotra moo ñu taalal lamp yi ubbil ñu yoon ñu teg ñu ci raay bi jox ñu pañe boo xam ne sax ndogu bu ku ñu ñëw ci yow di la seet si dañ la ko indil parce que nag koy seeti ci ndogu war nga participer ci koor gi ndax koor gi jaamu yàlla la te social la te partage la encore une fois di leen nuyuwaat di leen waa Ecotra la ko commencé ci seen directeur général ya ba ca ka mujj ñëpp waa Leewtoo ak koor gi ñu ngi kontaan ci yéen waaye lewto gépp sax parce que nag ku la euh, may ma jën wan ma ñuy nappe da koo gën a wóor ñoom nag dañoo wan ñu dañoo wan ni ñuy nappe ndax dañoo ñëw nag jël loolu ànd ceeg Babacar rek Leewtoo diñ ci gunge kon daal Ecotra na ma ko waxee woon rek Aysatu <laughs> bâtiment yi tali yi xëccum courant yi yi lépp Ecotra moo ciy seef kenn du Ecotra waaw waaw Babacar dañuy remercier suñu sponsor boobu di ñu gongee ci ndagu bi ak baabakan ñuy remercier Ecotra bu baax di nuyu ki nga xam ne ni mooy Maam Talla ci caméra bi di nuyu Ousmane ci montage ak équipe Leewtoo TV bi yëpp di nuyu sama borom kër di nuyu samay xarit samay soppe samay sama yaay samay goro samay njëkke di leen ñaanal kooru jàmm ak salaam. am na solo yal na ko yàlla def defal ko bépp doomu aadama rawatina jullit yi nga xam ne ñu ngi woor. kooru jàmm te yàlla nangul ñu ko waaye tamit di remercier ñuy suivre rek ñoom euh, maam Modou Gueye taalibi sëñ Mbaye si Abdou Ousmane Diop xam nga euh, mooy Benzema dem gars tuuti Yaay Sarr Babacar Touré Cissé nekk ba Brésil moom tamit doomu ndeyu général Malika wala Cissé bu général Malika sax laay wax te nuyu ñëpp ñi nga xam ne daal ñu ngi suivre fu ñu mën a ne mais fans club Babacar fi tamit du ma leen fàtte encore une fois di leen balu àq si koor gi ñoom Grand Laye Cédric Djib Sène ak ki nga xam ne nii tamit moom mooy moom kaw Kaolack Diallo nekk ca Lisbonne di nuyu waa Lisbonne yëpp Portugal ñu ngi leen di nuyu waaye nag Aysatu ñaari montre laa takk tey xoolal ma lii waa tey xam nga Lamine Samba sama grand frère la mm-hmm. ma estimé ko lool grand frère lii ci yow la yow laa gis nga di ko def tey nag ñu solal ma montre ma seeti dem tonnerre mu jël Aysatu gis nga tey montre yi bii Baba Diaw moo ma ko joxoon bii dem mbër bi ma seet seeti woon muy tonnerre numéro 2 moo ma ko jox loxoy kajo day weesaloo Talla Ndiaye moom ay film fu ma waay gis ci réew mi ne ma ana taala Ndiaye yaa ngi dégg moo tax monteur bii nag ñu ma jox gis nga ak valeur bi ni muy am solo yëpp ak li muy seer Talla laa koy jox tey solal ko ko Seri Lebu Ndiaye di kontaan ci moom Baye Fall bi Baye Mohamed ah ak Ndiaga kontaan bu baax a baax di nuyu waa Géejawaay tuuti yaay Sarr duma la fàtte di nuyu bu baax di la ñaanal jàmm mais monteur bi daal c'est pour Talla Ndiaye xool leen ko bu baax. taala laa koy solal du mën a ñàkk ay satu kon tonnerre yaa ma ko jox ma jox ko taala loolu la waaw Babacar dañ lay remercier si acte bu rafet boobu parce que maam Talla macha allah suñu Baye Fall bi dañ koy dañ koy jaajëfal quoi parce que nekk na koo xam ne doxul ci lu dul lu doxal liggéey bi day ñëw Aïcha jàpp si lii Aïcha defal lii Aïcha yokkal lii Babacar boo defee nii est-ce que du gën kumba doxee leen nii nekk koo xam ne daal soxla nañ ko macha allah si si bi di ko ñaanal jàmmam jàmm bu sax di ko ñaanal xéewal gu ubbeeku yàlla bàyyi ko njabootam gi barkeel leen moo xam li mu bëgg daal yàlla na ko yàlla defal si loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne ni ñooy suivre Leewtoo TV Fleur Thiam ah Fleur tamit ñu ngi koy nuyu ak magam depuis États-Unis Babacar a ngi lay nuyu bu baax a